salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci seen chaîne bu muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baal xaq ñu ngi leen di baalu xaq ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawfiq ak saadatu daarayni ñu koy sàkku ci yéen mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara ci àjuma ji di leen waxal jumaa mubaarak ñu koy ànd ak yéen ci ay àjuma ci ay tegtal yu ñu jàpp ne di ngeen koy. dana yomba def te ñaare muy lu bàyyi ko ci alxuraanu karim xam nga alxuraan lépp la soxla rek ci ak fànn bu mën a doon mi ngi ci ah, tey nag ñu ngi leen ci tegtal boo xam ne lu gaaw la ci lu ñuy wax toj liggéey def-def moo xam nag liggéey boobu ci sa wàllu yaram la ndax ñaar rek ma am def ko ci sa jëmm wala boog ñu def ko ci sa alal te mel na ne yaar yëpp dañuy faral di am doomu aadama nag dafa dafa lëndëm ba tax na mën naa jóge fi ko foog mën naa junge it foog ko foogee wut te mën na nekk lu bare bare nga koy jàmmat fekk boobu noonu la te amul kenn koo xam ne mën nañu ko liggéey ba jàpp ko xanaa lu dul maam pàgguteef yooyu nga xam ne ñaare <clears throat> ku dal ci kawam gis ko wala ku dal ci kawam yëg ko taktel biñ leen indil nag ah, ni nga koy liggéey boo demee ci suratul fiili mooy alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjilin faj'alahum ka'asfin maakul boo koy xool mel na ni juróom-ñeenti miim moo ca nekk su ko defee nag boo koy bind wala boo koy bindloo miim yooyu danga koy yaatal danga koy yaatal ba ay yi ma nga mën ko caa dugal ca biir miim yooyee boo yaatale miim yi ba mu yaatu miim gu njëkk ga danga ciy bind tabaarakallahu rabbul alamin bu ñëwee ci miim ak ñaareel nga bind nga bind ca tabaarakallahu boo ñëwee ci miim ak ñetteel nga ca tabaaraka allazii nazzala al-furqaana alaa abdihi liyakuuna lil-aalamiina naziiraa boo ñëwee ca miimu ñeenteel ga nga dugal ca tabaaraka allazii ci miimu ñetteel ga nga bind ca tabaaraka allazii in shaa'a ja'ala laka xayran min zaalika jannaatin tajrii min tahtihaa al-anhaar wa yaj'al laka qusuuraa loolu ngay bind ca miimu ñeenteel ga boo ñëwee ca miimug ga nga bind ca tabaaraka jaala fi samaai buruja wa jaala fiha siraajan wa xamaran munira boo ñëwee ca miimug juróom-benneel ga nga def fa tabaaraka allahu rabbul alamin boo ñëwee ca miimug juróom-benneel ga nga def ca boo ñëwee ca miimug juróom nga bind ca تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون boo ñëwee ca miimu juróom-ñettel ga nga def ca tabaraka ismu rabbuka tabaraka ismu rabbika zil jalali zul jalali wal ikram boo ñëwee ca miim gu mujj ga muy muy juróom-ñeent nga bind ca tabaraka lazi biyadihi l-mulku wa huwa alaa kulli shay'in qadiir kon muy juróom-ñeent laaya yoo xam ne boo ko xoolee mel na ne bu ci nekk tàmbale ba tabaaraka lay tàmbale bo ko defee nag lii mooy doon saafara si nga wut nag boo bind lii ba noppi nag nga wut quatre-vingt-dix xeer mooy xeer carrière yu xonq yu ndaw yi nga won nga wàññi ba moom quatre-vingt-dix bu ko defee koy saaf o ko saafee ba nga xam ne tàng na nga sotti ko ci saafara si mu fay bu fekkee sa jëm yaram la nga sangu ci lu mat juróom-ñeenti fan bu fekkee da nga jàpp ne am na barab boo xam ne daal ragal nga ci def-def moom dang nga ko fay wis boo noppee xeer yi nga suul ko fa. lii nag tegtal bu am solo la boo xam ne bokk na ci li mag ñi daa faral di jëfandikoo. donte yëguñu seen bopp sax def-def léeg-léeg daan nañ ko faral di ko jëfandikoo buñ toggee ay buñ toggee ay fan wala lu mu gàtt gàtt weer wu nekk ñu jëfandikoo ko ngir setal seen yaram ndax ginnaaw doomu aadama dafa lëndëm te bari na lu koy dal loo xam ne du ko yëg du ko xam ñaare bala ko yëg day fekk mu gañe ko moo tax ñaare ñu koy bari luñ ko daa def lool kon nga jàpp ko bu baax a baax mu tanga boole ko ci say bagage nga boole ko ci looy faral di jëf di ko faral di ko jëfandikoo kon mbokk yi nii lañ leen indiloon doon leen ko ziara ci àjjuma ji ko ngay wéy di abonné ci chaîne bi ak di ko tasaare ndax bokk na ci li koy dundal.